sante yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di gërëm suñu sëriñ sëñ Mbàkke borom dég bektaar bi di nuyu sama gars yi rek fa seeni Mbacke ban Serigne Basirou Mbacke mooy. Serigne Basirou dëgg la Serigne Basirou moom mooy moom mooy Serigne Ndeye Mbacke ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di kontaan ci euh, topp mi ngeen di topp Leewtoo TV rawatina seen euh, revue de l'arène bi ñuy amal bis bu yàlla sàkk. fay naa la day Mbacke amaan mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV euh, pour indi leen li gën a fas ci journal suñu lamb xëy ci xëtum mu njëkk Tapha Tine massacre boobu ba massacre Elton gannaaw ba mu téye Elton duma ko duma yu metti massacré ko loolu la journal bi wax ñu ne déet waaye mu téye Bombardier. dóor ko ba ñu nangu ko ci ay loxoom ku nekk gis na na combat ba demee woon euh, journal bi ñëw daal di mel ni ku samp laaj mu ne est-ce que euh, Boy Niang 2 wóor na ngir mu jàmmarloo ak Tapha Tine mii xeex ak moom asam dëgg la mbay Babacar ni nga ko waxee noonu la journal suñu làmb tey dafa xëy sëmp ab laaj nee ne Tapha ginnaaw bi mu massacré Elton loolu mi ngi xewee woon ci 30 juin 2011 stade Demba Diop teg ci dóor Bombardier ba kanam gi bëri ay deret nee na euh, Boy Niang est-ce que am na droit xeex ak euh, euh, kii di Boy Niang waaye nag Babacar ñu wax ne réalité làmb bokkul mën nga bëree nii tey ëllëg nga amaat combat li ngay defoon bële passé réer la mër. lu wax dëgg la parce que parce que adversaires yi tamit du ñu benn booy xool booy ñaar bokkul ak ñaari adversaires yi ñu fi cité. exactement Bombardier ak euh, Elton. Elton bokkul euh, ak euh, Boy Niang ndax Boy moo leen gën a frais physiquement. tombeur de Boy Seye. Papa saw gannaaw ba mu duggee biir pikin daan ki nga xamante ni moom mooy booy Sey Tonnerre ak bàcc Seras journal bi nee na dafa mel ni daal euh, ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Papa saw moom dafa teg 16e buntu Pikine rek ku génn rek mu dóor mu daal. dëgg la Mbaye Babacar Papa saw dafa teg 16e buntu Pikine ndaxte daane na fa 9 mbër yoo xam ne nii ñëpp daf leen a daan daane na fa booy Djiné. Aliou Mané Ibrahim 2 Double Less 2 Kati Junior Cheikh Ngiraan Boy Sey Bàcc Seras teg ci ténor waaye nag nee na kenn moo ko fa të kii di Ama Balde moom moo ko daane seen combat bi mi ngi amee woon le 17 février 2018 ci stade euh, Léopold Sédar Senghor nee na ginnaaw bi mu daanee 8 combat 9 lutteurs ci Pikine daal Ama Balde moom moo ko freiné. Euh, waaw bëri na fa ay victoire en tout ku ko daane ci ab koñ. wala cib dëkk wax dëgg yàlla jeexal nga leen. su duggee biir Pikine nu ko neex lay doxee. waaw mais nag Ama Baldé dikk na pour arrêter ko. mooy xale xale Pikine ba Balla Gaye 2 Bombardier Gaston Mbengue ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier suñu papa Gaston Mbengue moo taxawal boobule combat gannaaw ba mu jàppee diggante Eumeu Sène ak Lac de tamit euh, la 4 avril nee na diggante Balla gay ak Bombardier incha allah bu ci yàlla àndee bëgg na organiser ko bu koor gi jàllee. dëgg la Mbaye Babacar Gaston ngi yaramam moo tàng ginnaaw bi mu euh, ficelé wala ginnaaw bi mu prévoir tëgg combat ëmb Sène ak euh, Lac de Guiers le 4 avril génnaan na wax ne combat Bombardier ak euh, bo Gaye prévoir na ko après Ramadan loolu nag ñu koy xaar entre mois de mai ak juin ci espace boobu daal wala ci période boobu la bëgg tëgg combat boobu. espèce coach Diabong spécialiste des sports de combat. Boy Niang 2 peut se bagarrer avec Tapha Tine. Euh, coach Diamond ba nga xamante ne bii ni nga ko waxee Ndeye Mbacke xam-xamam dafa màcc ci wàllu sport de combat ñoom moom nag ñëw na ci journal bi andi xalaatam ci diggante tafaatin ak ki nga xamante ne bii mooy Boy Niang di combat boobu nga xamante ne bii Leewtoo production moom moo ko taxawal euh, nee na Boy Niang mbër la ma nga xamante ne bii mën na jàkkaarloo ak Tapha xeex ak moom ndax day xool ku te am na lecture de combat. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi suñu lamb interrogé woon ndax Tapha am na wala booy Niang 2 am na droit wala euh, ñeme na euh, jàkkaarlook Tapha di xeex moom coach Diabo moom dafa dikk dëggal loolu nee na Boy Niang am na possibilité bi am na ay argument yu solide yoo xam ne nii mën na ko permettre mu xeex ak Tapha Tine nee na Boy Niang euh, ma xam na boxe te mën na déplacé wu day xool ku donc mën na xeex ak vraiment kii di Tafatine. mbër la ma nga xamante ne mbër mu naqaree bëre la ndax buy bëreeg yow day mel ne dalaa ragal te ragalu la. exactement bo Mbaye Mbaye Babacar day stratégie lay bëree te ay day déglu également conseil man na nekk ci combat yaakaar ne nga yaakaar ne da nga ko ragal dalaa ragal. mais ndekete moom mu ngi xool port bu mu la jaar ba daane la. arbitre day soufflé mu dem gauche dem droite jam la coup arrière boo ko toppee doo ci jëlee lu la neex. dëgg la Mbaye Babacar. pour battre Réparé 2 surbic mu mel ni ma nga Gambia di préparer combat am ak ki nga xamante ne bii moom mooy teg jël. gis nañ ko fa ba ñu demee am na laay ca mbappat ma muy bëree wante tamit gisaat nañ ko biir Banjul muy bëre ci mbappat yi nekk foofu mu mel ni moom daal li mu li mu li mu li mu li mu jël mooy dugg ci biir mbappat yi ngir waajal boppam. dëgg la mbay Babacar noonu la ko journal suñu làmb waxee eh, réparé deux fourbi ses mu en Gambie moom maanaam réparé deux mi mi ngi Gambie di préparé combat bi mu war a dajeek eh, teg jël moom nag nee ne eh, lu tax mu dem Gambie mooy que ne Sénégal dafa bëri ay restrictions pandémie bi moo fi nekk couvre-feu bi doo am temps pour nga entraîner wu looloo tax mu dem Gambie pour préparer sérieusement combat bi war dox ci digganteem ak teg jël Euh, Antoine Sène président la la carrière de Gisou Sène a été freinée. Antoine moom mi leen nga xamante ne bii moom mooy président Thiamassas euh, Nianing moom li moo xam xamle moom mooy carrière waa euh, Auguste seen dañu ko freiné dafa bëri ay gàllankoor ba tax na carrière Auguste daal fa mu war na àgg àggu fi mu nekkoon mbër mu mbër mu mbër mu mbër mu mëtu na bàyyi xel na dëgg la Mbaye Babacar Antoine Sène moom mooy président écurie Thomas Sass Nianing kii nag euh, écurie bi mi ngi nekk ci Mbour moom nag mooy président écurie bi nga xam ne mbër ko ci lutte simple na nekk euh, def lu bëri moom nag nee moom mooy benn blessure bu grave boo xam ne nii mi ngi amoon ci championnat d'Afrique yu euh, amoon ci Niger nee na Sénégal la doon représenté foofu la jëlee jëlee foofu blessure bu grave boo xam ne nii moo tax carrière am yàqu. ŋànk wàllu làmb waroon nañ koo taxawoo ngir mu mën a génn ci gàllankoor boobu ko daloo exactement normalement euh, waa fédération wala waa CNG ñoo ko waroon jël en charge faj ko ba mu wér pour que mu mën a continuer carrière mais ndax couleur couleuru Sénégal la doon défendre. talent bu yàqu la ndax Auguste mi ku ko xamoon fu regret toll ci lutte simple toll woon na fa. ba léegi Baye Mandione évoque le titre roi des arènes. Baye moom mi nga xamante ne bii moom moo nekk caaro yu gëm sa bopp Assane ñëw na ci journal bi wax ñu. li nga xamante ne bii moo notre roi des arènes naka la war a mel. dëgg la mbay Mbaye Babacar xam nga roi des arènes am na ñu naan ni ñu koy amee dafa yomb da ngay daane mbër rek nekk ko bàyyi ma ñoon nag moom dikk dikk ne ne. comme roi des arènes Modou Lo da gars yi dañ ko doon euh, dingat yooyu mu ne Modou Lo roi bu baax la roi bu bu bu bu kenn mënul contesté la ndaxte avant mu koy jot dafa daanu ci euh, Balla Gaye dem defaroo juwaat ñëw daane Eumeu Sène le 28 juillet 2019 ci stade Léopold Sédar Senghor nee na daal euh, titre roi des arènes Modou Lo daf ko mérité te lu incontestable la kon daal Baye Mandione nangul na Modou Lo titre roi des arènes nangul na ko malgré que ne woon nan bëree ba ba bëri trois ans sans sans lutter moom mii di rakku Balla Gaye da journal bi nee na ñetti at a ngi nii gisuñu ko ñetti at daal ngi nii Sa gisuñu ko mu tooyal ngembam gannaaw ba mu jàmmaarloo kii di Boy Niang mu daan ko. dëgg la Mbaye Babacar Sa Thiès ñu ngi ci gëj a ñu ngi ko gëj a gis ci làmb ji depuis combat ko Boy Niang daanee loolu mi boobu ba léegi daal Sa Thiès ñëwaatagul ci làmb gi mi ngi am nag ay proposition de combat ñu ngi koy wax ay Garga ay ñoom Yékini Junior mais ba léegi daal Sa Thiès kenn xam gisugu ko ci làmb ji amagul benn combat boo xam ne taxaw na pour jëfle ko tegu ak euh, ci biir combat ci biir euh, làmb ji. mu mel ni mbër su laloo day day màgg daan. waaw waaye nag euh, temps bi du ko xaar. du arrangement trois ans en plus ci défaite la jógee. Calme mhm. Ndour prêt contre Eumeu Sène junior. Calme di euh, mbër mi nga xamante ne bii waa Leewtoo TV barki démb seeti nañ ko euh, suñu làmb ñëw na ak moom nee na moom mi ngi waajal bu baax a baax combat bi war a dox ci digganteem ak Eumeu Sène junior ñoom ñaar ñu nekk ñaari naataango wante nekk ñaari champion. dëgg la Mbaye Babacar noonu la ko journal suñu mu waxee Calme Ndour pare na pour jëflanteeg Eumeu Sène junior moom nag nee na Calme pare na ci physiquement mentalement ak mystiquement côté yooyu yëpp pare na ci euh, Calme Ndour ba ko Leewtoo jëlee ci émission bi mu doon def ak euh, Ndeye Mbacke ñu naan ko Leewtoo ak wax na fa ne pare na te combat bi prip dip lay doon. prip dip mooy lan. prip dip hop rek. arbitre suuf la rek mu yëkkati dóor ci suuf mu daanu. ah loolu mu ngi suñu kanam. waaye Eumeu Sène ni mu toll est-ce que dina yombee noonu. ah Eumeu Eumeu ndaanaan la. en tout cas Kalbu am na combat. directeur technique kii Balla Gaye de Oulès et cetera kan moo ci nangu dem ñaar doon nga xam te ne mooy Père Balla bi école de lutte Balla Gaye Balla Gaye ba fi suñu papa Balla Gaye nduur jóge ba léegi euh, euh, journal bi dafa ñëw samp laaj na euh, Balla Gaye 1 wala Double Less kan moo ci nangoo nekk. ki nga xamante ne bii yaay wuutu suñu papa Balla Gaye 1 ci poste directeur technique bu école de lutte Balla Gaye boobu. dëgg la Mbaye Babacar Moussa Ndiaye di président école de lutte Balla Gaye moom moo defoon proposition boobu ci biir suñu làmb ginnaaw bi Balla Gaye 1 génnee àdduna te moom mu nekkoon directeur technique léegi post boobu kenn nekk ko instant bi nag léegi président Moussa Ndiaye génn ne post boobu Balla Gaye wala les kenn ci ñoom dinañ ko si proposé léegi nag journal suñu làmb bi xëy samp laaj na ñaar ñi. kan moo ci nangu jël poste boobu. jërëjëf ndey Mbacke jërëjëf Assane Waalo borom Linguère maa ngi lay jaajëfal wante maa ngi nuyu bu baax baax waa 100 pour cent Mbaye Babacar yëpp di leen jaajëfal di jaajëfal waa Diourbel sama dëkk di leen dig daje incha allah ëllëg ak jàmm. Euh, Ndeye Mbacké di la remercier di comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier <laughs> Yacine Fall li leen jox dig daje suba. yow toujours Yacine rek ngay remercier. dan ma koy forcer moo tax. kon jeex na. <laughs> di leen jaajëfal bu baax baax maa ngi remercier équipe équipe technique Leewtoo TV yëpp tey nag lépp dañ koy maye suñu maman rek ah Adja yaa Ndella borom dégg bi neexee merci beaucoup maman. di nga ko daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.